ni ngeen ko gisee gàncax gaa ngi nii bii mooy pour euh, cholestérol gàncax gi si li doon waxtaan ci cholestérol gàncax gi moom mooy gàncax gi nga xam ne moo lay dimbali pour cholestérol boobu dañ sa yaram te cholestérol boobu noonu mooy li nga xam ne ne waaw mooy loolu daal LDL euh, bi moo nekk ni moom lañ leen doon présenté mun ngeen waxtaan ak seen représentant ci gox gi ngeen nekk comme ça pour mu mën leen ci mën leen ci fàggul jërë ngeen jëf.